dem ba Maayomba fa ñu yóbbu woon sëriñ bi waaye bu nu jógee ci sëriñ Muntaxa ñëw ci rakkam ju tedd ji nga xam ni moom lañ dénk kàdduk yoon wi ndax muy koo xam ne day soññee Seex Basiru bu waxee bu toogee te waxul sax soññ na la ci dal ci personnalité ak ci murité kon sëriñ Seexuna kàddu gi yow lañ koy jox nga ubbil ku tedd ki karawaan baa ngi nii sëñ Cheikh Mbeng sëñ kalam jàmbaar yi nga xamante ne ak soxna na bu njëgeen mi nga xam ni mooy soxna sëriñ maam Thierno moom sëñ taxa waaye ak soxna Batoor ñoom ñëpp kenn ku ci nekk pare le 14 lañ war a fas yéene dem lambar na dem Mayomba dem Libreville te Mbàkke nag demoon nga fa muy yoon woo xamante ne yoon tiis la. ginnaaw bi ñu teewee ci barab bu tedd bi ci kanamu Cheikh Mouhamadou Bachir moom seen Abdou Khadir di ñaan yàlla mu yàggal ko fi loolu te wéral ko. Euh, sëriñ bi ñu njëkkee tuuti ay leeral ginnaaw bi nga xamee ne yàlla dogaloon na ñu ñëwoon fii ci yow jaarum ko ci sëñ Cheikh Mbacke sa xarit ñu ñëwoon doon a leeral mbirum liggéey bi nga ñaan ci ay ñaan yu am solo wax ja wax ju am solo wax ja ak ñaan ji nag dafa mel ne yàlla suñu borom nangu na sa ñaan looloo nag am na lum jur lam jur nag mooy ginnaaw bi nga xamee ne ambassadeur bu Gabon bi nekkoon Sénégal yàlla def bi président bi toogee nommé ko ministère affaires étrangères bu Gabon te moom mu nekkoon kenn koo xam ne dama jàppale caravane bi lool te bëgg Serigne Touba nag ñu woon ci moom waxoon ko sëñ Mouhamadou Mountakha mu ñaanal ko waaye ñu amaale tamit euh, mbégte goo xamante bi rëy na lool ndax ñëw na ci kanam Sëriñ Muntaxa moom mu ñaanal ko sëriñ bi bindoon benn bataaxal boo xam ne dañ ko jaaroon ci moom ngir ñu mën a sàkku foofu suuf foofu ca Mayumba ngir procès yi nga xam ne moom lañu fa fas fas fas yéene amal moo mën a sotti ginnaaw bi yàlla dogal ministre bi ñu waroon dem Gabon waaye ci tawfeex Sëriñ Tuubaa moom ci boppam yàlla dogal mu jóge New York ñëw Sénégal ci la ma woowe ne kon naa ñëw dakaar mu recevoir ñu ñu ñëw jox ko bataaxal bi wax ko bëgg-bëgg yi bi noppee ci loolu mu xamal nañu président dañu fi ñëw mois de décembre bu ñëwee insha allah rabbi dañu leen toog mu recevoir leen ngeen mën koo àggale yéen yi ak li ngeen bëgg te itam li sëñ bëgg incha allah rabbi dana ko def. bi mu ñëwee tamit mois dee décembre bi ma recevoir nañu caravane bi biñ ñëwee ñu toog ak moom wax ko bëgg-bëgg yi ak yéene yi fi ñu toog moom ci boppam moo jël téléphone am woote Kodas di ci suuf soo nu mu demee daan wax leen nu ngeen ko bëggee ak fi ngeen ko bëggee ñu defal leen ko ministre boobu tamit sëñ bi bokkul sax maa nekkul sax ab jullit waaye moom moo ne président bi sëriñ tubaakat kat ñeent bàtt yi mu sappoon fii ci Mayumba tañ tañ sempi woon ko yàlla da ko ko fayee benn bi mooy jumaay Touba benn bi mooy njaareem benn bi mooy Masalik daan na ko président ñeenteel bi Mayumba la war a nekk ñoom ñu bëgg ca lool daan na ko sax waruñu yem sax ci loolu waaye café Touba ni mu amee war na am café Mayumba suuf soo xam ne day mel ne rek day delluwaat ci moomee rek Sëñ eh, Tuubaa loolu Mbàkke sag ñaan la goo xamee ne bi ñu fi ñëwee ñaan nga ci soññee ci def ci ay kàddu kon nag loolu xam naa sax xam nga lépp waaye dana la koy gën a leer rek loolu nag day mel ne la Sëñ Abdu waxoon ne njàmbaar amut kun dimbale mu am ndax lii eh, Sëñ Fàllu liggéey Sëñ Tuubaa rek la ci jublu woon moo taxoon mu sos lii ànd ko mbokk taalibe yii bëgg-bëgg du dara lu may liggéey sëñ liggéey boobu nag dafa mel ni kon moom la yàlla suñ boroom nangu nii ndax sëñ Tuubaa moom lim ñaan boroomam faaw dara am tawféex nag mooy am ci nit ki fan lay jaar ñu bëgg nag Mbàkke nga ñaanal ñu ñu bokk ca tawféex yooyu nga xam ne naal yooyee ak liggéey yooyee dana sottee ci ñun te sëñ bi maa yomb kat am murit nekku fa xam naa suñu seex dañ ci ñëw léegi murit dëkku fa sore na lool. projet yii nag muy jumaa ak barabu jàngukaay lañ fa bëgg a amal ginnaaw bi nga xamee léegi am nañ suuf si ba noppi te loolu nag bu ñu sañoon yaay teewe loolu teg xeer bi loolu ñoo la koy ñaan Mbàkke ngir li Sëriñ daj foofu ci ba nga xam ne ba mu samp bantam yooyu di nodd ñu koy sempi di ko sànni ba yelli say xuloo ak commandant bi tosbaar ba jant bi so sëñ moom ma ci mbind ma rek dama koy tënk ca la taalife xasida rabbana axrijina ak raditu hani mawla ñaan boroomam yàlla may ko jumaa ju mag ju yaatu waaye yàlla may ko ko pare wan ko loolu nag mooy jumaa yi am yëpp loolu nag lañ bëgg foofee mu ko doon defee ñu bëgg bokk ci tawfeex Sëñ Tuubaa man faa taxawal loolu te buñ sañoon la cay jiitu ci yow mii lay doon sañ bi ginnaaw nag sëñ Mouhamadou Mountakha joxe ci ndigal te yow yaay kàddu yoon wi mu tax Mbàkke ñu ñëw rek doon leeral li li des xam naa dañ koy bàyyi ak euh, sëriñ bi incha allah sëriñ Cheikh moom waaw ñu ngi jégalu nag ndax ab bu ndaw rek lañ ñu ngi jégalu baax ci jataay bi euh, sëñ bi xam naa sëñ Cheikh naa wax lépp jotale na. Euh, wax na ni ñëwoon nga Gabon euh, te ñëw gi yaatal liggéeyam sëñ Tuubaa boobe rek nga xam ni moom liggéey la boo xam fu mu mbindeef nekk ci kaw suuf rek maanaam sa njëriñ a ngi ci biir boo ko xamee boo ko xamul loolu nga koy yaatal ci dëkk bi ba indi ko Gabon àndoon nañ amoon pas-pasub jóge Libreville dem ba Mayomba la ca waroon a aju yëpp tamit sotte woon na loolee nag fam yamoon fa lañ bëgg mu doore waat fa bëgg nañ ñu àndeek yow ci Libreville wàcc Mayomba ndax cent 819 kilomètres mooy diggante Libreville ak Mayomba ci jamono ji waaye jamono jafa sëñ ba ne nga xam ne amul aw yoon amul saxaar amul dara lu nit mën a dugg sëñ bi ci gaali géej lañ ko doon jël di ko joow lu mat junniy kilomètres gaal gi dina dem ci dëkk ba ñaan Kablo Bisa jaar ci ndox mu ñu naan Lëguwe door a jël océan Atlantique dawaat ba wàcc ndox moomu dem ci ndox mu ñu wax la Lëguwe mo ndox moomu moom la ñuy wax fleuve Bagnon moo jël genn wàllug Mayumba geneen nga des océan Atlantique bi jël ko looloo tax sëñ bi naan mara jël bare ni barab boobu nga xam ne sëñ Tuubaa am na fa juróomi at yu mu ko mus a fa xew dem fa rek tax sax nit man koo xam ndax loolu ko nit misaal misaal doo ko mën a xam fanweeri at ak nangam ak nii nag ñu di ci dox. ca 1995 fekkoon na ñuy defi centenaire ba ànd ko ak daayira Hizbut Tarqiyyah ak yu bari ba mu agsi fii tey jii lii sëñ Seexuna wax lépp doon lu suti ndax ca kaw la dalee jëm si suuf ndax njiitu réew ma ci boppam. woo na délégation spéciale yi nekk ci réew mi ndax bi mu toogee wàcce na maire ya fa nekk yëpp teg fa ay colonel colonel yooyu jox na leen instruction ni leen barab bu sëñ Touba nekkoon nañu sako suuf nañ leen joxe noonu suuf ñu jëmmal fa mbirum sëñ Touba am na tamit benn ancien président euh, président wu ensemble national bu ñu naan Olivier boo xam ne déclaré na ni su ko maire maay ba maire bu Lambaréné mayee débarcadère ba sëñ Touba wàccoon ci Lambaréné mu defar ko tuddee ko débarcadère sëñ maire bi nga xam ne wàcce woon nañ ko tamit muy Pontalier te ñëwoon fii seet sëñ Mountakha moom it nee na débarcadeur Maay moom dem na bale ko sax ba mu set wicc di xaar rek mu nga ñëw rek sax bañ teg caw xeer bañ xam ne fa sëñ ba wàccoon ànd ak nasaan ñu di ko gërbal yóbbu ko ci foo xam dañoo jàpp ni mën nañ ko faa denc séquestration lañ doon def tëj ko ci foo xam ne du mën a def dara mu di leen réer ba maa ngi faral di wax ne jamono ja tubaab bi di bindub leet di ko yónnee si fii naan sëñ bi daa génn àddina booba jamono ñoom ñoo umpale sëñ bi ndax sëñ bi daa dem yoonam at boo xam ni li tax ñu di ko baamu mooy tubaab yi seen bopp naxu ñu woon du woon njuumte waaye xew-xew yu rëy fa am yoo xam ne xam naa dinan dinañ fi ñëwaan sëñ Mamour ci budul occasion bi leeralati ko sëñ bi dax mbir mu yaatu la waaye liñ bëgg a wax daal Mbàkke mooy barab ba suuf si jot nañ ci li sëñ Tuubaa rek lañ fa doon liggéeyal ab dëkk ko fa am fanweer at ndax fa lañ sëñ Moustapha Lo ba woon wóor nañ ni la sëñ Fall bu soni woon liggéeyal sëñ Tuubaa moo fanu doomu aadama nañ ko fondement loo xam ni su ëllëgee si biir ku ñëwati mën ko cee teg moom nag defar nañ kayit ba lépp valable na ba lépp luñ soxla ci réew Gabon Sénégal gépp buñ bëggoon a màggalee ndoo kenn du ci dem ci ambassade eh, état bi autorisé nañ ñu ñu bind benn euh, benn visa collectif ñëpp yónneendoo seen i kayit wàccandoo Gabon ñu di leen escorté bañ dem ba ci jàmm lañ ca bëgg lépp am na te sa ñaan gi lii sëñ Seexu naa wax lu xam ne ndax biñ fi jógee ak yow wax su fekkoon fi sëñ Mamor mi yàggul ginnaaw bi gis nañ fi président réew ma gis fi ministre des affaires étrangères euh, tey loolu ñaan gu nangu lay tekki bu ko defee nag kon Mbàkke ñu ngi ñaan murid yëpp ci àddina xam ne Gabon géeyam ab dëkk la waaye Mayumba ga sëñ ba ne woon 819 kilomètres la Libreville benn bi yeewu fa daanaka ay julli sax bariwu fa kon foofu dañoo bëgg murid yëpp fekk nu fa ba la ñu yéenee sottalal sëñ Tuubaa ginaaw boo fa tegee xeer ba noppi ñu sottal ko ci diir bu gaaw ba ndam lii nu am ci Masaalikul Jinaan ci ñaari guddi Ndakaaru ñu am ko fee ci juróomi ati baru maa yomb ñu ngi jégalu baax Mbàkke ñun ñëpp nu bokk teewlu kaddu bokku julli di bokk taalibe murid yëpp ñu ngi yëkkati suñu kaddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fii Serigne Touba tey ci kaw suuf di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér suñu bam doon ko kattan ak wér ba mu mottali mboolem li nga xam ne bëgg na koo liggéey Serigne Touba ndax moo leen ci ndigalam ngeen fi ñëwee itam kon ci kàddu ndigalam yooyu ñu ngi nuyu ñëpp tàmbalee nuyu bi nag suñu Cheikh naa kon ñu ngi lay nuyu yaa ngi bokk taalibe yi nga àndal ak bokk taalibe yi nekk Gabon bàyyiwuñ kenn di leen sant di leen gërëm ci xalaat ak liggéey bu bii nga xam ne danga fekkoon sa waajur nekkoon ca wóor wër sa daanu wër sa laal suuf te wër sa yëngatu kon lii ab liggéey bu rëy boo xam ne da ko fa fekkoon fekkoon magi murit yëpp comme ni ko sëñ bi waxee ku dégg kàddoo bi kàddu yi diis la ndax gabon gabon moom ku ko xam xam ne mooy liggéey mooy yoonu murit ndax boo amutoon tey jàmm ji ñu nekk duñ ko am nekk fa sëñ Tuubaa nekkoon moo ñu may li ñu may tey ndax leeral leeraloon na ko li ko tax dem ci géej gi kon jëru dellusiwaat liggéeyu géej gi nag mooy Gabon lépp foofa la mooy Mayumba Lambaréné ak Libreville Libreville yeggu fa waaye Mayumba nag mooy fa mu gën a yàgg dëgg dëgg dëgg dëgg na am na fa juróomi at Lambaréné nag mu gën a métti xam ngeen nam ahliha noonu ko sëñ waxee rek fekkum fa kenn kuy topp yàlla wala kuy topp yonent kon loolu mooy leen topp ba nag noonu mu ko waxee rek leer na fu mu ko fu ko waxee Gabon moom mbind mi dafa diis mbindum sëñ bi sax boo koy boo koy jàng boo dëgërul rek seeroon xëy dana sotti ko ndax condition yi fa yi fa sëriñ bi nekkee ak la taxoon ñu yóbbu ko fa ak nam ko dékkoo ak ndam lam ci am lu ci ne da nga xam ne yàlla rek moo mën moo mën moo mën a sàmm ab jaawam waaye la ci gën a yéeme nag mooy xasida yi sëriñ bi taalif mënoo koo xàmmeek xasida yi mu taalif njaarim mënoo ko xàmmeek xasida yi mu taalif gànnaar mu ne su ko xamee kese xasida yi mu taalif Tuubaa gi boo ko seet sax xasida yi gën a neex gën a dàq gën a rafetum bind gabooro ko sëriñ bi ne kon gabo mooy liggéey bi dëgg-dëgg dégg naa ci lam ñu sëriñ Saliou kenn nettaliwu ma ci lam ñoom laa nangoo mu wax ne sëriñ bi waxoon ne nag gaboo de suul naa fa loo xam ne yàgg-yàgg dara feeñ xam naa xéewal li ñu am loolu ko fandi waaye seen lii itam lu ci agsegut rek xam leen lu jotagut la waaye dana agsi Gabon moom dafa bokk ci bari bi Sëriñ Tuubaa yi ni ki nga xam ne Sëriñ Tuubaa noonu la moome Tuubaa gii ak njaareem Gabon dafa bokk ci bari bi Sëriñ ndax liggéey bépp fara ko Sëriñ Tuubaa defee fu Sëriñ Tuubaa defee liggéey ba nag na leen wóor na jeexe jàng fa ndax koo xam ne foo jaar bàyyi fa jeexe rawatina foo ne foo ne ju loo juróom-ñaari at ju sama yaay jéem Rasulullah di ko di ko fekk ñëpp di ko fekk ba liggéey bi mat ba moo ñu jural li ñu tey kon li ci des nag mooy sant yàlla te yéen taalibe yi it ñun ñun taalibe yi sax laay wax ñoo ñun ñëpp ay ñu gën a góorgóorlu ci liggéey Sëñ Tuubaa ña yéen taalibe fa nekk bokk taalibe yi fa nekk laay wax nañ ci góorgóorlu def ci gën ci def yitte te gën a àndandoo booloo nekk benn te xam ne le Sëñ Abdou daa wax da daa wax ne foo déggee ñaar ñuy xëccoo adduna li xëccoo. waaye xajal ma penk bi damay jul doo ko dégg mu ko kon ñoom itam nañ xam ne Sëriñ Tuubaa leen boole liggéey Sëriñ Tuubaa bi leen boole nag kon dara wut leen tàggale ndax taalibe yi Sëriñ Tuubaa rek moo leen boole kon nañ xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa bi lu ci waay man de dina ko ci def bu ci kenn séntu ndamul boppam itam ndax kenn mënu fi am ndam lépp Sëriñ ko bu toon ak Sëriñ kenn du man dara bu toon ak Sëriñ Tuubaa ñun ñëpp kenn du ci am kenn du ci xam dara bay man dara kon kon jéem a sàkku ndam sa jur ko li ci am solo rek mooy fexe ba la suñ bëgg am te la suñ bëgg am nag moom kenn mënu ko te am ndax suñ yoon néew ci suñu bilaat daa wax ne liggéey suñ Tuubaa li ci am solo mooy façon gi waaye na muy fexee ba mu am nañ xam ne suñ yoon néew ci lii itam li muy nuru nuru lu diis jumaay Tuubaa ji firnde la ci suñ Tuubaa dafa fekk fu dara nekkut ab pak bu dara nekkut mu ni seer fa juma bàyyi ko fi ñu tabax ko ginnaawam sëñ Modou Moussa ànd ko dogu ak rakkam yi fi bàyyi woon tàmbalee Cheikh Mamadou Fadil ba ci Cheikh Mamadou Mourtada ñëpp ak mboolem rakki Serigne Touba yi ak Cheikh yi ndax ak Cheikh Ibrahima Fadil la Serigne Touba defoon jëwriñ ji ci bi mu fi nekk ndax ñu bari xamul ne tàmbaloon nañ gas ba sax ci kan nekkul Serigne bi moom juwaay Touba ñu bari xamul ko ci yotu fu jullikaay xeet bi nekk boo farane woon dañ ko xaw a toxal si waat ginnaaw andi ko fii sëriñ bi nekk waaye kon foofa la ko suñ borom maye jumaay Tuubaa ji ak njaarim te sëriñ bi ko waxoon suñ Cheikh naa nettil na ko la huktub salaatan maa salaam mooy ci xasidak rabbana axrijna loolu rek ci nga xamee mettitu fa la sëriñ bi nekkoon rabbana axrijna min haasihi alqaryati zalimi ahluha loolu la suñ bi tënk xasida raditu anil mawla taala lasi rabba fuadi wa axraani wa bihi rabba ba mu àggee ci la huktub salaatan maa salaamin bi alihi wa bihi masjidi rahba suñ boon xamal ko ne ko naa sag ñaan may naa la ñaari jumaa te yenn ji dañ ci mooy jumaay Tuubaa ak jumaay Njaaréem moo tax jumaay Tuubaa suñ Tuubaa santaane daa waxoon ne bu ngeen ko defut te ko def suñ borom may na ko ba noppi ba noppi ba jumaa ba jumaa njaarim noppee ba muy santaane jumaay Tuubaa wax na bépp taalibe bu ko mën na ci joxe ñaar fukki juróom-ñett daa waxoon ne lii nag daam am lu leen lu di jàngal mooy lépp lu ngeen bëggati wala lépp lu ngeen sumbati rawat na lu mel ne néegu bi yàlla ngeen ci góor góor góor góor góoru seen kemtalaay kattan def ci la man ak la ngeen mënut te lu ngeen ci amut ngeen dem laxa saayu sàkku ji ko ci ana gu sell te fu seen kattan yem fu ci te fu ci ngeen toog xaar fa say jaalullahu baana usrin yusra daal di wax ne te rikki maa ngi leen di waxtandiku loon lépp ndimbal loo xam ne bu leen fajalee seen i soxla it daan tal te tilimal seen daan tilimal seen ngor daan leen xañ seen ngor eh, xañ leen seen seen jom tilmal seen diine daan sa yetti jikko yi ne képp ku mu ne ci yow war ngaa feex ba mu sax ci yow képp ku mu nekkul ci yow war ngaa feex ba mu nekk ci yow wax na loola nag bokk na la jiitu ci la koy maye mooy feex mooy moom sa bopp man sa bopp ak ñekk sa bopp ndax nee na boo moomee sa bopp man sa bopp ñekk sa bopp te mooy doo nangu kenn moom la ku yàlla doo nangu kenn ndot la ku dul yàlla doo nangu itam jël say soxla di koy di ko wéer ci yitte doomu aadama yi ndax loolu boo bu amul rek ñaanal la jiit see la koy maye nag mooy fexe ba man sa bopp la jiitu see la koy mooy fexe ba ñàkk la la jiitu see la koy mooy fexe ba ñàkk man sa bopp kon loolu ndigal la loolu suñu Tuubaa digal kon nag ñu ngi leen ñu ngi soññu bokkitaal bi yëpp ñu àndoo booloo te ko xool waxtaan wa Serigne Saliou mu jox bokk na ca. xasida gam jàng yaa rabbi ij'alil muridina maa fii xisnika alxasini wa chamlaj maa wa wa chamlaj maa nag mooy nag ma dajalee sama mbooloo ba dara dara du leen tàggale kon nag ña fa ne ñëpp ñu ngi leen di gën a digal ñu gën a góorgóorlu kenn ku ne du xool Sëñ Tuubaa ci sa morom koo xool Sëñ sa morom rek ak juyoo dox dox seen diggante ndax bu ngeen juyoo rek adduna la te adduna bu duggee rek Sëñ Tuubaa sëñ bi laa daan du fecc def saako bu ci àdduna duggee rek bu jafee rek xam leen da ngeen caa dugg àdduna mu gàntu bu dee sëñ Tuubaa kese parce que yëpp sell te lépp jëm ci moom lépp da yomb jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf ah ñun ñëpp de war na noo ñaan nga yàgg fi sagub murit yi nga sagub jullit yi nga te lii nga nu def wax nii mm-hmm. Mbàkke dolliwaat nga nu dolliwaat nga nu bëgg sëñ Tuubaa dolliwaat nga nu gëm ko moom nag seen Seex Mbàkke toujours mu wax ko keroog ba ngay ñëw ba war a dem ba ngeen waree dem Maayomba hmm. dañoo mujj ñu yor jaww ji ñoon leen foofu mënu leen faa wàcc ndax mi ngi taw taw boo xam ni kenn mënu faa dugg foofa nag lañ yóbbu woon sëriñ bi mu def fa juróomi at hmm. fañ na ñoom mënuñu faa dem lañ yóbbu sëñ bi mu def fa juróomi at wax nañu Seex Murtada lii suñ Cheikh naa wax sax looloo ci am yàlla def na président bi ba fa nekk nii bi ñëwee woo nañ ma sax waaye dafa war a ñëw Tuubaa euh, ci bisub àjjuma waaye dafa tombeek Serigne Cheikh Modou Moutakha nekk Porokhane te ba Porokhane condition yi dem gaak dëpp gi dana jafe tomb dañu woon dafa am yéene ñëw Tuubaa looloo tax moo ko fi te agsi waaye dañu woon saa su njëkkee ñëwaat Sénégal dana ñëwaat boppam ba Tuubaa te kooku du jurit kon lañ xam ci Serigne Tuubaa Euh, xam xar baaxee sëñ Tuubaa ñoo ko fa jëkk foofu lañ newoon ci sëñ bi mosuñ koo ñëwee naa ñoo xam diggante sëñ bi Tuubaa bi moo tax ñoom ñëwee wuñ sëñ Tuubaa kooka du waxuma ab jullit waaye du du du jullit sax ba doonu murit waaye bi mu agsi laata mu ñëw Sénégal daa wax daa forcé ne mënut a ñàkk yow Tuubaa man boo waxoon naa ko gàllankoor bi mooy euh, da fekk sëñ bi nekk Poroxaan moo ko teg si. maanaam moo ne dinaa fi ñëwaat seet si seet bi ndax yoon léegi maa dafa xat maanaam pour nga wax nii rek sëñ maa ngi jéeglu waaye kooka nijaayam Omar Bongo maanaam maanaam rakki Omar Bongo jur président bi fa ne te Bongo moom moo taxawoon jël ñeent fukk deux cent nationalité jox sañ sëñ bu Bousso ni ko man je suis un mouride de cœur man mouride laa boo xam sama xol laa jox sañ Touba léegi kooku bu fa toogee ñeent fukki at ak ak ak ñaar doomam toog na fa fukki at ak ñeent kii tamit xam na ni moom ci boppam ni la ko fay téye ba mu toog fa ba ba am fag dal fii Touba ko mën a amee waaw Mbàkke ay ndam rek dama leen laay wax sëñ Touba ju bees nag la mag ñi amoon démb am nañ ko tey wali radam duran wali garamal janba aqasani al anan min kaydi man xala wasarakana lil xilli li barma yumba